mbokk yi asalaamaaleykum man la Babacar Mbengue maire commune Hann Bel-Air bëggoon waxtaan ak yéen tuuti ci feebar bi ñuy wax coronavirus. coronavirus wala Covid 19 dafay feebar boo xamante ne lu am la te gis ngeen ne jamono ji ñu toll mën naa ne moom moo lëmbee àdduna fii ci senegal ci commune Hann dafa am taxawaay boo xamante ne dama bëgg ñaax suñu mbokk yi ñu am ci taxawaay bi taxawaay bi ci jiitu. moy dañuy éviter di dajalo yenn rassemblement yi dañuy éviter di joxante loxo ñepp xam nañ ne suñu aada da fay digal ñu joxante loxo waye nak dafa am lu xew ci jamono. ñi ngi leen di ñaan en tout cas à ce que ngeen def ko comme man dima ko defee saa yu ma xeyé damay ñew raxas sama loxo ndox ak saabu bu dul ndox ak saabu ma daal di jël gel hydroalcoolisé donc liñ ci jublu moy buñ ci tax amee taxawaay boobu daañu mën a xeex en tout cas lii di coronavirus comme ni nga xam ne moom la ko ministère de la santé jégleen liñ leen bëggoon a fàttali mooy dafay feebar boo xamante ne ñun doomu aadama ñoo koy paasante dafa am aussi comportement boo xamante ne war nañ ko am dañuy bàyyi xel bu ñuy toog ci diggu mbooloo war a sëxët nañuy def toujours comme ni ko ñëpp di ko waxee di sëxët ci li nga xam ne mooy suufu loxo bi

éviter en tout cas li nga xamné moy rassemblement yalla mën na def sutura ba en tout cas law ci fi commune Bel-Air ñi ngi sant ñep di di aussi partenariat à ce coronavirus en tout cas ñu